meeting d'ouverture benn Bokk Yaakaar si Mbacké si terrain de la gare Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma ministre conseiller des si ginnaaw fii si permanence bi nekk si Mbacké fii la départ après quelques réglages ak équipe bii mu àndal doon ay ndaw yi nga xamante ni ñoo yor liggéey bi lépp le protocole assuré sëriñ bi yéeg si otoom direction Mbacké fa meeting bi di amee convoi bi départ tout au long du chemin fu mu romb ñëpp bàyyi ko xel ndax nag ndaw yi bàyyiwuñ dara ci ay way ak kañ seen leader Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma def attraction si Mbacké. di ni jàmbaar bi yi di liggéeyal réew jàppale ndaw ñi di jàppale jigéen ñi Cheikh Abdou Lahad ana Georges Aïda Georges après agsi nañu fii mitin bi di amee fekk na nu ko jiitu woon jigéen ñi ak mag ñi mënul nangu si oto yeeg dugg ñoom ñu woon fii di ko xaar convoi bi accompagné woon ak ay jeunes yu engagé déterminé wu si ginnaaw ñoo ko gunge accompagné ba si biir ñu ne nekku une grande démonstration de force fii si Mbacké terrain de la gare bi Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma duggee ñëpp la ko dem si tribune officielle le candidat Amadou Ba recevoir ko boole kook tamit ay compliments yu am solo ci dimbali jigéen ñee si ah jàmbaar yi président Macky Sall si mu Serigne chargé de mission yi ki di Mbaye Ndaw yi chargé de mission yi mu sëriñ Cheikh Abdoulaye Mbacké de ndeysaan ma yegsi na ah waa Mbacké yëngu leen jàmbaare ñëw mais muy ngi sëriñ Abdoulaye Gaye Fatma di ko sant bu baax di ko gërëm ginnaaw bi ko ziara moom dañ ko koo nangul ñun ñuy sëriñ moo door dem du leen lu dul na ñëpp jàppale la candidat bi ñu leen joxeñ muy Amadou Ba si élection présidentielle yi dellu siwaat waat si njëriñ li lu tax ñu war koo mën a jàppale ak fii contexte bi toll ak lan moo ko wutalee ak yeneen candidat yi si xam-xam ak si vision bu weex ñi am mbégte nag jël kàddu ci sa kanam di la feddali sunu kóllëre di la xamal ne président Macky Sall moo nu boole ak yow joxañ la tànn la ci mbooloo tànn boo xam ne ñëpp dañu ne kat yow yaay ki nga xam ne yaay le mieux placé yaay le meilleur profil pour porter le flambeau Benno Bokk Yaakaar. loolu moo tax kenn ku nekk ci ñun jëfandikoo xelam xam ne sa expérience sa jaar-jaar sa compétence ak sa yéene ak sa dal fii situation réew mi toll yow yaay ki xam ne yaa gën ci réew mi yow yaa gën ci réew mi ndax yaa war a penser les yi nga xam ne am na ci biir réew mi yaa gën ci réew mi ndax yaa ki war a réaliser la réconciliation nationale yaa gën ci réew mi ndax yaa ki nga xam ne yaa war a tappat xol yi boole ko avec une vision claire bu leer nañ ñëpp topp sa ginnaaw nga jëmale Sénégal fa nga xamante ne mooy fi gën yaa ki nga xam ne yaa gën ci réew mi ndax lépp loo xam ne président def na ko fi président ma Sall te muy lu rëy rëy rëy ñun ñëpp ñu teg bët loolee vous faites partie des principaux architectes de ces programmes kon yaay ki nga xam ne non seulement yaa ko war a mën a continuer mais yaa ko war a mën a def également dans le progrès pour que jéego yi nga xam ne Sénégal mi ngi koy di jëm ca kanam jéego yooyu yokku ba ñee gi ñu ñëpp di ñëwee waxtu bu muy seen Sénégal mu tapé ca kaw te loolu nag nekk loo xam ne sunu maam yu baax yi Touba si Hadj Malick ak mbooleem ñi mel ne ñoom ñoo ko ñaanoon démb tey soog a ñëw Cheikh Abdoulaye fii la toog di wax ak mbokkam ne ko lu ñu dégg ci Arabie Saoudite muy lu mel ne muy lu mel ne gaz na nga xam ne am na ci biir Sénégal gi 40 après tey jii ñëpp teg na seen bët. kon loolu muy loo xam ne boo ko si àndal mu ñëwee ko sax day takk dee su ko dénk. loxo yoo xam ne ñorut deesu ko dénk loxo yoo xam ne attunul am réew deesu ko dénk loxo yoo xamante ne bii ci aventure lañ ñu jëmee yóbbu foo xamante ne bii dañuy dagg suñu diggante ak suñu ay xarit jëmee ñu foo xamante ne bii loolu wóorul ci Sénégal Sénégal yi fi ay kilifa diine li sookal bi fi nekk monsieur le président yow yaa ñu ci doy loolu moo tax ñu nangu ànd ak yow mbokk yi yéen ñëpp ngeen Amadou Ba ñu fal ko au soir du 24 février maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. comme yeneen bis yi tey jii dafa gën a wanewaat boppam si mobilisation. bu am solo moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Fatma moom yi nu jàpp nag bi mu ñëwee si APR am na taxawaay bu mat sëkk ndax zone yi moo ko initié depuis 2017 boole kook am na taxawaay si jigéen ñi si jeunesse bi ndaxte bari na ñu mu enrôlé dugal leen ñuy liggéey tey jii di jëriñu waaye tamit bari na jigéen ñu mu formé financé leen politiquement parlant apporté na du 109 si Benno Bokk Yaakaar depuis son accession